xibaaru bis bi ci Senweb TV lu ci gën a fës bokk na ci rek mbirum 210 plaquettu cocaïne pure di PC 235 kilos la agent yu brigade mobile des douanes bu Koungheul subdivision bu Kaffrine région douanière du centre daal di saisir la ca tukkee yëpp dinañ leen ko dégtal ca na mu gën a yaatoo accident bu am ci ko tali bi démb si altine ji ci ay booru juróomi waxtu ci fajar ci diggante Trawo Dendu Diek Dancali ci commune bu Ogo région bu Matam quatre passagers maanaam ñeent mujjee ñàkk seen bakkan Cheikh Thiam ambassadeur placé nañu ko en garde à vue ca division spéciale bu cybersécurité bu police nationale bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi ñu jot waaye itam mbirum Samuel Sarr bokk na si lu ñuy waxtaane moom moomee ñu teg loxo àjjuma bi la ñu weesu ca AIBD fekk mu doon jógee ko Dubaï mi ngi en garde à vue ca section de recherche bu Colobane lu ñeel nag xibaar ya tukkee si moom danañ leen ko dégtal ca namu gën a yaatoo Moustapha Diakhaté fànn bu démb bu njëkk ci kaso gi moom ancien président au groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar bi eh, gannaaw ba ko procureur de la république placé sous mandat de dépôt eh, procès bi eh, xam nañu date ba ko jàpp dinañ leen ko dégtal taskatu xabaar bi lee di Madiambal Diagne daal dinay décidé retirer plainte bi contre Dame si ab ay kàddoom yo mu yëkki ci benn communiqué bu mu fësal la xamle boobule xibaar dikk defeere ko altine ngir diffusion de fausse nouvelle Adama ko àttee àjjuma buy ñëw en flagrant délit gannaaw ba ñu ko bàyyee bàyyim dëgg nekk bi yëkki na kàddoom yi njëkk lam ca xam ne yëpp dinañ leen ko dégtal ci wa ilaa mu desandi primature la mu ko ñaax danañ leen ko dégtal ci kanam tuuti danañ àddu ci mbirum taxawu Sénégal bu Khalifa Sall ak rek euh, la nga xamante ne ni moom moo fa jot a am dinañ leen lu ñeel mbirum people ak lu ñeel défilé défilé de mode Elisab bi euh, buñ doon amal semaine bi la weesu euh, ca Arabie Saoudite ak rek euh, li nga xamante ni moom moo di Kaaba ga ñu def en lumière ngir rek comme illuminer star ya nga xamante ne ni mooy yu américaine ya fa nekkoon ak ay colko yu rafetul benn yoon communauté musulmane ba nakkar lañ ca am loolu yëpp bu yembee ñu toftal si xibaaru tàggat yaram ak diggante Modou Lo ak kile di Siteu ak Papa Sow la mu ca proposé mbokk moo gën a fës yi tënk rakk bi ñu daal di koy mu nga bàkk ba jib na nuyu nañ leen bu baax yéen ñu ñu teel waxtu le temb ci Senweb TV xibaar yi nañ leen ko diggee lañ koy dal di defee commissariat central bu Diourbel daal dinay démantelé benn présumé réseau escroc ak ñetti soxna yamu teg loxo lépp a ngi tàmbale ba gouverneur bii di Ibrahima Fall saisiré commissaire principal Mor di koy xamal présence su benn ONG euh, bu enrôler ay euh, candidat ngir benn éventuel projet euh, de logement sociaux naka noonu ne la ko chef takk der yi ànd ak chef de l' exécutif régional national bu Bawol euh, demee ci bërëb ya ñu leen wax foofee policiers yi dañoo nemmeeku ne ONG Omar City bu yor benn récépissé daa bokkoon ci ay inscription nit ku nekk di koy fay 6 000 francs ngir frais wu dossier investigation yi wane na ni présenté benn convention bu état bu Sénégal signé euh, si noonee gouverneur bu Diourbel bu nekkoon si liggéey ya daa jox ndigal commissaire bi ngir mu dakkal liggéey ya ba noppi yóbbu responsable yu ONG bi euh, police ngir audition autorité administrative bi daa wax wax ngir ñu remboursé euh, koppar ga ñu ba noppi si lu ñeel inscription yi bu ñu sukkandikoo ci ay sources Senweb téeméer ak ñaari doomu aadama jotoon nañoo bindu ba noppi euh, ci liste de présence bi ñetti responsable yu ñu teg loxo ñoo ngi en garde à vue ngir lu ñeel wàllum enquête bi. ñaar téeméer ak fukki plaquettu cocaïne pure di pese ñaar téeméer ak fanweer ak juróomi kilo la agent yu brigade mobile des douanes bu Koungheul subdivision bu Kaffrine région douanière du centre dal di saisir test ya ñu amal ak ay kit de détection de drogue bu ñu def euh, si euh, disposition ay unité douanière laboratoire national de la police technique ak scientifique dëggal na ko contre valeur drogue bi yëpp ñoo ngi ko xayma si dix huit milliards huit cent millions ci suñuy koppar les saisi euh, gannaaw ciblage benn pick-up euh, L200 monocabine bu jógee ko woon ci benn réew limitrophe euh, contrôle bu xóotu ba carrosserie wu ndaamaar gi moom moo tax ñu gis ñu nëbb ci diggante chaise ya ay plaquettes drogue yañ ca surxal chauffeur bi di nationalité étrangère teg nañu ko loxo enquête baa ngi koy wéyandi communiqué bi fàttali na ne unité douanière bi yi saisir nañu diggante mars ak novembre 2024 lu tolloog ñaari junneeg téeméer ak fukk ak ñeenti kilo Dakar Kidira ñu xayma ko si lu ëpp téeméer ak juróom fukk ak ñeenti milliards ci suñuy koppar gannaaw loolee administration des douanes feddaliwaat na détermination wam si xeex wàllum criminalité transnationale organisée bi gën ca leer trafic internationalu drogue bi. accident bu am ci kaw tali bi démb ci altine ji ci ay booru juróomi waxtu ci fajar ci diggante Trawo Dendoudi ak Dancali ca commune Bogo région bu Matam ñeenti doomi aadama mujjee nañu ca ñàkk seen Turquie ñetti doomu aadama la ñu woon ne ñoo ca ñàkk seen bakkan ak fukk ak juróom ya cay jëlee ay gaañu gaañu euh, si diggante bi nag euh, kenn si ñu si jëlee ay gaañu gaañu daa mujjee noppalu euh, gannaaw ba ñu ko évacuer kër docteur bu ñu sukkandikoo ci lieutenant Ignace Françoise Ndiaye commandant wu compagnie locale d'incendie et de secours bu Matam ñeent si fukk ak juróom yi si jëlee ay gaañu gaañu si boobule accident am gannaaw ba ñaari minibus mbëkkante ñoo ngi tamit si état bu euh, grave ñu àddu jëmale ci leneen Cheikh Thiam ambassadeur placé nañu ko en garde à vue ca division spéciale de cybersécurité bu police nationale bu ñu sukkandikoo ci ay xibaar yu bàyyeekoo Senweb politicien bi ñoo ngi koy toppee biral ay xibaar yu amul euh, soo moytuwulee nag dinañu ko defeere tey ci talaata ji ci bu amul coppite si simili gu mujj gi ci fàttali euh, Cheikh Thiam dafa jëloon ay tuuma yu grave si annoncé benn éventuel sérieux assassinat par emprisonnement naka noonee le procureur de la république actionné DSC. ma addu ci mbirum euh, Samuel Sarr ñu daal di koy teg loxo àjjuma ba ñu weesu ca AIBD fekk mu doon jógee ko Dubaï Samuel mi ngi en garde à vue euh, ca section de recherche bu Colobane euh, directeur général West African Energy bi di benn projet central électrique ñoo ngi koy toppee abus de biens sociaux préjudice bi ñoo ngi ko xayma si ñaari milliards ci suñuy koppar gannaaw ku nekk jamono ji directeur général Sénélec Pape Toby Gaye observateur annoncé na yeneen audition di bu directeur général général de la société industrie commerce Sénico di Abdoulaye Dia ak bu représentant wu directeur général lu Locafrique Abdou Karim Diop ñoom ñoo démb ci altine ji la ñu leen teewlu ca section de recherche bu ñuy xarandi tey ci talaata ji ancien directeur wu Sénélec Papa Mademba Bitèye si kanam enquêteurs yi source bi précisé na ni audition homme d'affaires bi di Arouna Dia programmé nañu ko tamit mu nekk jamono ji ca Ouagadougou capitale Burkina Faso Arouna ci altine ji waaye benn vol bu manqué euh, mu reporté ñëwam bi euh, si xibaar yi ñu ca mujjee am homme d'affaires bu am alal bi euh, jege lool Macky Sall ñu ngi koy xarandi ba jile ci ay booru midi audition wam bi ñu jege dossier bi qualifié ko comme benn tournant décisif mënees na jox benn impulsion majeure enquête bi li ni mel waa observateur ñoo ko prédire ancien ministre des énergies bi si jamono yi Abdoulaye Wade ak directeur général West African Energy di Samuel Sarr ah, mi ngi depuis àjjuma bi ñu su si loxob gendarme yu section de recherche bu Colobane li li mel gannaaw ab plainte bu homme d'affaires bile ah, di Moustapha Ndiaye actionnaire West African Energy def di tuumal Samuel Sarr ay mbirum abus de biens sociaux si lu tolloog juróom-ñetti milliards ci suñuy koppar dafay reproché ancien DG wu crédit seen société bi euh, si beneen société boo xam ne euh, dafa am ay intérêt bu ñu sukkandikoo ci ay xibaar yu bàyyeekoo Seneweb ba mu janook enquêteurs yi Samuel Sarr euh, daa clamé innocence sam ay sources autorisées nee nañu nag daa contesté ak fermeté tuuma yu collaborateur am bi daal dinay défendre boppam si xam le deful benn détournement te nag ngir convaincre gendarme enquêteurs yi Samuel Sarr daa indi ay firndeel ak benn bordereau fanweer ak juróomi pièces Thiès waaye gendarme yu boucler enquête conduire bi ci kanamu procureur de la république buy décider la cay toppandi ñu interpellé ko si lu ñeel euh, benn dossier bu koy wutaleeg Moustapha Ndiaye actionnaire ak ancien président bu conseil d' administration bu West African Energy euh, Samuel Sarr mi ngi euh, ñu tee jamono ji ca section de recherche bu Colobane bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi ancien ministre énergie bi ci jamono yi Abdoulaye Wade mi ngi subir ay condition de détention yu métti bu ñu sukkandikoo ci benn source bu jege om d' affaire bi kenn mënula gis Samuel Sarr depuis ba ñu ko teewee ba tey ba mu des ay avocat mbokkam dañu leen gantal ngir am ab visite di lu source bi di euh, ñaawlu ak nakkarlu si fàttali si service yu ancien ministre bi defal réewam tax mu mérité woon plus de respect source bi fàttali na tamit ne Samuel Sarr moom tamit porté na plainte Moustapha Ndiaye waaye plaintam bi enquêteurs yi instruire ñu ko mbir yu ko waral nag xamuñu ko Moustapha Diakhaté fanaan guddeem bu njëkk ci kaso gi ancien président groupe parlementaire parcelle benn bokk yaakaar bi euh, procureur de la république placé na ko sous mandat de dépôt procès bi ñoo ngi ko jàpp alxames ñaar fukki fan juróom-ñett ci weeru novembre euh, ca tribunal bu grande instance hors classe bu ndakaaru ci fàttali euh, Moustapha Diakhaté démb ci altine ji ci suba la ko waa division spéciale de cybersécurité bu police nationale déféré ngir insulte commis par le biais système informatique taskatu xabaar bi di Madiambal Diagne daal dinay décider retirer plaintam bi Mbodj sama avocat maître Baboucar Cissé dina déposer benn acte de désistement bu procédure pénale bu ma initié woon contre monsieur Dame Mbodj syndicaliste ngir diffamation mu yëgle ko ci benn note bu mu biiral daal dina cay toftal tamit ne procès bi ñoo ngi ko jàpp alxames ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru novembre atum ca kanamu tribunal correctionnel bu Ndakaaru désistement d'instance bile wax na jeexal action publique bi dikk déféri ko altine ngir diffusion de fausse nouvelle Adama Gaye daal dinay bénéficié woo bàyyim dëggane ko te dinañu ko àtte àjjuma buy ñëw en flagrant délit gannaaw euh, ba ñu ko bàyyee taskatu xabaar ba jaajëfal na ay soutien wam benn communiqué daal la biral daal di cay xamle ne yàlla rek mën maa ngi euh, jaajëfal ñëpp tàmbale ko euh, ci sama avocat bu talentueux bi di Seydou Diagne bu dévoué wu depuis moment bu dikk njëkkee bu convoqué ma dañuy sant yàlla ak moom maa ngi nuyu nag avocat yu mag Diallo François Senghor yu constitué wu euh, pour sama défense du ma ñëwaat fii ngir lu tax ñu garde à ma rawatina ngir am dëgg ci kaw yoon maa ngi jaajëfal sama famille samay sœur jërbaat ak ñëpp ñi ma taxaw si waxtu bi ma nekkee ci loxo sécurité bi sama xel dafa daloon maa ngi euh, leen di nuyu euh, samay mbokki Facebook beeg société physique bi ngir lu ñu marke tamit seen appui expérience bu ma dund dama gën a dëgëral jaajëf yàlla ngi gis lépp te mooy tranché bis bu yàlla sàkk moom mooy àttekat bu mag bi lépp a ngi tàmbale woon àjjuma ci suba file ci dikk ak sama avocat maître Seydou Diagne maa ngi jaajëfal seen TV tamit ngir bu décente bi euh, ngir seen posture euh, bu décente bi te professionnel gox yu bees jaajëf mu xaatim ko ci page Facebook am euh, politique mbirum Ousmane Sonko la koy dooree si mu dem assemblée wa illa mu desandi primature Robert Bourgui giseewul nu yenn figure yu société civile bi gisee ancien conseiller politique franco-libanais bi figure majeure France Afrique euh, bokkul gisin ak ñu jàpp ne Ousmane Sonko bopp liste Pastef bu jël législative yeeg 130 ci yi dafa war a jógee ko euh, ci euh, primature bi ngir occuper perchoiru parlement bi bu ma jëwrin bu njëkk bi laajoon laaj wi dama koy wax mu desandi ci bopp nguur gi te fal keneen ca assemblée mu suggéré ko laata muy expliqué wu daal dafa jàpp ne travail effectif bi ci bopp nguur gi la bu ko lëkkaloo ceeg ki nga xamante ne ni moo réew mi euh, ma àddu ci euh, mbirum taxawu Sénégal euh, Babacar ba mbay moom dem na ba noppi jàpp ni amatul lenn la muy def si witu Khalifa Sall ak Barthélemy Diaz ñaari leader yi dañu leen interpellé gannaaw débâcle bi si législative yi 17 novembre bi ñu weesu formation politique bu visé woon majorité amul lu dul ñetti siège ci cent cinq yi si 15e législature bi problème fondamental taxawu Sénégal mooy absence structuration bu weesoo Khalifa Sall ak Euh, ba noppi décidé ngir ñëpp amatul keneen mu koy nakkarlu moom membre formation politique bu fësalul boppam euh, militant yeeg yeneen i responsable yi conseil di considéré wuñu leen comme seen alter ego dañuy décider et c'est ñëpp dañoo yaakaar na ni mel dafa war a dakk te si plateforme yi ñi des wa ila ñu des ci parti bi idée bu ñu gën a défendre mooy taxaw Sénégal daa war a jëm ci ab restructuration de l'appareil ngir permettre nit yi ñuy dundee yaakaar ne mbir yi dina am coppite dinañu mujjee bàyyi dem seen ba yoon Alioune Mar maire Rufisque Ouest bu génn àdduna ñaari fan ci weeru août bi ñu weesu am naka ko wuttu Astou Guèye bu nekkoon première adjointe bu ancien responsable local PDS la ñu fal bu ñu sukkandiku ci les échos journal bi souligné na ni maire bu bees bi mi ngi am fanweer ak juróom-ñaari voix ci kanamu Papa Bougouma Diène Ndiaye 29 votants ak Aminata Thiombane ñeenti voix ancienne député euh, bile di Aminata Stel Sall ca Paris la génne àdduna samedi bi ñu weesu moom mu bokkoon ci onzième législature bi 2017 bu mu nekkoon Benjamin bi feebar mu ko tëraloon ci diir bu yàgg bu ñu sukkandikoo ci les échos néewam dina yegg Ndakaaru euh, tey ci talaata ji ci ay booru 14h euh, levée corps bi si bisub tey jilee la ñu koy amal tamit bu 17h30 jotee ca mosquée omarienne bi laata ñu koy denc ca diwaanu Podor mille une saison défilé. de euh, mode Elisab bi euh, semaine bi la ñu weesu euh, la ñu ko organisé ci Riyad Arabie Saoudite di mettre en vedette woykat américaine yi la di Jennifer Lopez ak Céline Dion boobule manifestation folklorique juraat na coow lu rëy ay membre communauté musulmane bi nakar la ñu ca jëlee di ñaawlu surtout représentation nga kaaba gu sell gi ngir illuminer boobule spectacle nga xam ne amul dara yiiw di mettre en lumière ay jigéen yuy défilé ak feccoo ak col ko yu ñaaw lool jullit yu bëri nag yu différentes ko sacrilège euh, buur bi Mohammed euh, Ben Salman la ñu ca duut baaraam bu ñu sukkandikoo si ñoom dafa doon ñàkk jox cër euh, dëgg suuf su sell googee daara bi saoudite jullit yu si àdduna wërngal këpp waaye itam kërub yàlla bu njëkk ba di kaaba gi noonu lay xuusee ci xibaaru tàggat yaram Modou Lo la ñu jox ndam ci kaw site Liberté Arène Nationale ak boobule succès si mbaru Lansar bi chef de file écurie Rock Énergie bi daa gardé couronne roi des arènes bi waaye nag élection bi Papa Sow eh, benn combat wu leeral daal dinay imposé wu a dakkal coow li Papa Sow daa jàpp ne ñaari mbër yi dañoo war a sëgg dal di bëriwaat bu ñaari mbër yi d'accordé jàmbaar production pare na ngir organiser waat affiche bi si njeexintalu saison bi ñoo ngi déglu ñaari mbër yi mu proposé ko moom ancien mbëru fas bi laa mu cay toftal ni eh, du doon gulleet ñuy disputé benn combat ñaari yoon ci benn saison gisoon nañu fi kaaw Yékini Baboy eh, gannaaw coow lu seen confrontation bi combat bi dañu ñëwaat ba mu defee ay weer Yékini am ndam ñaari yoon euh, yëpp da see prox ndool ngir leeral combat bi ba tax na ko lu tax mu ne suñoo def noonu ak Modou Lo ak Siteu euh, ci njeexintalu saison bi si place su Siteu euh, bi nag manager jàmbaar bi dafa suggéré def lépp ngir am boobule revanche te jéem a jël couronne bi ndaxte jamono ji ñu bëgg ko wala rek ñu ñàkk ko bëgg mooy numéro 2 wu arène bi daal dinay tëjee ay kàddoom si xamle ni gannaaw Modou Lo ñaareelu yoon bi mën na affronter Balla Balla Gaye te nag bu amee ndam si kaw Modou mën na laal bu néewee ba néew benn cachet wu ñetti téeméeri million ci suñuy koppar waruñoo bàyyi Modou Lo mu dem retraite ak couronne bi mu ngoog jaajëfal nañ leen yéen ñu doon teewlu di leen dig daje ba ak jàmm ak yeneen xibaar yu weex te wër ba tey file ci Seneweb TV.